amul courant mu ñu taal groupe bi
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba mooy alxadru min al bidai sha ashura sunu xutba mooy mooy tandikuloo mbokk jullit yi ci bidaa yi nga xam ne moom mooy xew ci ashura alxadaru min bidi ashura mooy tandikuloo sunu bopp mooy tandikuloo mbokk jullit yi ci weer wi nga xam ne mooy weeru tamxarit nga xam ne li ëpp ci weer wi lu mel ne bisub tey bi ak bisub suba bidaa yi da ciy bari trop mbokk yi ñu bari dañuy wax samedi ak dimanche mooy tam xarit ak tam ñarit waaye ku xam dëgg xam ne ba sab tam xarit vendredi tey bi la ban bis lañ julli woon tabaski tabaski ñëpp a julli ne woon benn kon bu ñëwee ba tam xarit ana lan moo ko divisé waat ana lan moo taxat mu nekk ñaar xanaa du calendrier ba ñu tabaskee woon ba tey mooy continuer wala dafa am lu mu soppeeku ci diggante bi ixwatal iman yambagi ala al muslim an yahzara min al bidai shaa'i'a fi yawmi ashura فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكهل والاغتصال والحناء والمصافحة وتبقي الهبوب وإزهار السرور وغير ذلك فهل لذلك أصل أم لا dafa am kenn ci kenn yi islaam yi ci borom xam-xam yi ku ñuy tuddee seexal islaam ibnu taymiya rahimahullah dañ ko laaj ñu ne ko waaw nit ñi seen programme bi ñu yor ci tamxarit di ko def lu mel ne jënd ay tusngal di tusngalu lu mel ne sangu farata lu mel ne di fuddanu lu mel ne di ndokkeelante ak di nuyoo ak di togg ak di feeñal kontante ak yeneen yu mel nii ñu laaj ko ndax am na cosaan ci diine fa ajaaba fi kitaabihi majmuul fatawa lii may wax nii ku dem ca téere ba ma nga fa téere boobu tudd majmuul fatawa ku dem di nga ko gis boo ci bëggee xam-xam mu ne sant ñeel na yàlla lam yarid fi shay min zalika hadisun sahih an nabi sallallahu alayhi wa sallam wala an ashaabi mu ne lenn lu ñuy def ci jaamu yàlla yii ñu ko laaj mu ne amu ci lenn lu wér ci hadis bu wér bu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu tax julli ji di ci sonn di ci rey seen bopp waxuma sax yonent bi waaye sahaaba yi ci seen bopp kenn ci ñoom sax waxul lu ci jëm yemu ci loolu mu ne lal aimma arbaa wala gayrihim même ñeenti imaam yu mag yi abu hanifa malik shafi ahmad ñoom kenn ci ñoom adduwul ci ñun lii ñuy def tey def ko diine mu ne wala rawa ahlul kitubi al mu'tamada jëlewuñ ko sax ci téere yu wér yi ñuy sukkandiku buxaari muslim abu daawud tirmisi nisaayi ibnu maaja téere yu wér yooyu sax doo fa dem fekk fa hadis buy wax ci yi ñuy def bidaa yi ñuy def ci tamxarit ixwatal iman yemul ci loolu waaye mu ne wala sahaba wala taabiin laa sahihan wala daifan nee na du kenn ci sahaaba yi du ndongoy sahaaba yi ña toppoon ci sahaaba yi muy taabiin yi doo fa fekk sa hadis bu wér wala bu daif bu ñuy wax ne lii war nañ kaa def ci basib tam xarit kon su fekkee lii lépp wérul kon ñun waa Sénégal bidaa yi ñuy def ci tam xarit kon fan lañ ko jëlee sangu yi ñuy sangu nekku sangu doo feebar tusngal bi ñuy tusngalu nekku tusngalu du gumba wala du wànneen raay yi ñuy raay bopp jirim bool yi ñuy dëpp jant yi ñuy xool bisab fukkeel bi bidaa yooyu aaya alxuraan yi ñuy bind di ko naan kayiti alxuraan yi ñuy bind qul naam wa antum daaxiruun bind ko def ko ci dank cere daa di lekk soo demee ci sama mbokk haal pulaar ya ñoom dañ naan mo haarani wonta haar ñaam ha kaara ɗum tagi innirɗon ɗum haaran ɓe mbi mo haarani wonta haar ɓe annda ɗum ko mawɓe ɓe funtirtuno sukaɓe ɓe wi haadi hitande nan gasa hitande hesere nan ara ko ñalawma oɗo hande heddi e hitande hiɗne nde sa haarano a wonta haar par ce que hirade nde gasi joni noon enen innirɗen ɗum haarani il faut lacceeje ndefee li ci gën a ruslu mooy da nga ci gis ku togg cereem lekk ba pare daa di jël benn dank teg ci digg bool bi ñu ne bu ñu xëyee suba ci la ñuy sëlmu ñenn ñi ñu ne néew yi dañuy jóge àllaaxira di ñëw di reer si néew buy reer si kay xanaa bool bu fees dell lañ ko war a tegal waaye ñu tegal ko dankub cere man su ma doon néew boobu bu ma ñëwee waa kër gi yëpp dinaa leen wulli néew bi kañ la gëj a lekk ñaataat gisu leen ko moom kay bu fekkee day jóge ci armée li di ñëwaat di reer si xanaa kenn waru ko tegal bon tànkub cere ka xanaa kay bool bi yëpp lañ ko war a jox reer bi yëpp ndax moom gëj naa lekk waaye gis nga nit bu duggee ci bidaa borom bi tabaaraka wa taala day yóbbu xelam dootul xalaat parce que yow bidaa rek ngay gis te ñun Sénégal loolu mooy suñu problème rawatina nag su kenn ci sunu kilifa diine waxee. nangam bi def leen ko ah kenn dootul xalaat ndax kilifa gi li mu wax ni wér na wala wérut déedéet def leen rek wala yenn saa da ngay xëy ñu ne tuur leen fukki paanu ndox ci buntu kër yi gaa yi tuur ndox ah def leen nangam def leen nangam gaa yi di def def leen nangam gaa yi di def def leen nangam gaa yi di def ixwatal iman laa budda ñu xam ne bidaa yàlla du ko nangu bidaa boroom dafay dafay sonnal boppam chaque jour ñu joxe misaal ci bidaa ki def bi daa def na waaye yàlla du ko nangu suñ la ci doon jox misaal bu ndaw yow mi nga xam ne da ngaa yor yére bu bees tàq mbasin la ganilaa la cuub la nga yóbbu ko ci téer bi ne ko ñawal ma sama yére bi waaye ñawal ma ko ñetti daggit na am tubéy na am chemise na am grand mbubu mu nekk ñetti morceau moom mu daal di jël tissu bi yëpp daal di koy ñaw grand mbubu ñawul mu mu ndaw ñawul tubéy defar ko ba mu rafet teg nga ñëw ne ko ñaw nga ko mu ne la waaw ñaw naa ko moo ngi nii nga tàllal gis muy grand mbubu boo xam ne dem na 20 mètres nga ne ko waaw ana tubéy bi mu ne non le temps yi lii moo xew ana chemise bi mu ne la xanaa déggoo li ma la temps yi lii moo xew jarul ngay nga ciy def chemise ak tubéy tailleur boobu su ma leen doon laaj ñaw na ko wala ñawu ko di nga gis ku ne ñawu ko ah kay ñaw na ko kay waaye ni mu ko ñawee yow bëggeewoo ko noonu ñaw na ko sikk ne ko ci na dagg na ko ñaw na ko ndax moo ngi nii ñaw na ko waaye ni mu ko ñawee du yow du noonu nga ko bëggee léegi nag wax ji mooy da da nga koy fay wala daf lay fay foofu la wax ji nekk ñaw naa ko da nga may fay da nga yow yow da ngaa rep yow sama tiisi sax nga may fay nga koy wax loolu mooy bidaa bidaa mooy li nga def te yàlla sant la ko ba pare nga bëgg yàlla fay la loolu mooy bidaa mooy julli yi ñuy sos ci tam xarit bi ñaan yi da ngay xëy gis ku yor téeméeri junni kurus hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñee ña ngay jàng soixante-dix mille lixlaas ñee ña ngay jàng téeméeri junni yaasin yaasin ni da koo mën a jàng téeméeri junni yéen tamit ah yow da nga am jot boobu xul allaaw bi ñuy wax sax yenn saa yi demoon nañ benn dëj ndeysaan ci armeel yi benn kilifa mu ne nañ njàng ci tukulóor la woon nag njàngee capannay lixlaas qul huwa allahu ahad allahu samad kala mo gayni yoowi mi gayni rek benn waay ne mi gayni mu ne ko yaawi waa ji bi mu naan jàng leen ñeen fukki qul huwa allahu ak benn ku pare na nga ne pare naa rek benn waay ne pare naa moom daana lagul waa ji ne pare naa mu ne ko gaaw na ñoom mooy sunu diine fii diine bi taf taf lañ ko benn waay bi ma bi ma koy wax mu ne ma ah pourtant mun na nekk dëgg de ndax lixlaas rek la imaam bi wax kon moom mun na ne lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas mun na ci bañ a jàpp qul huwa allahu ahad ma ne ko non lixlaas mooy qul huwa allahu ahad mu ne mais léegi bu waxee lixlaas lixlaas lixlaas mun na gaaw looloo tax ñu bëri ci ñun xanaa yooyu la ñuy jàpp te yooyu yëpp ay bidaa kese kese kese la li gën a ruslu nag mooy suñ nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la santaane yow nga nekk ab jullit li ma jàpp mooy yow li yonent bi santaane loolu nga war def waaye loolu da nga koy gis ci sunu dund lépp da ngay gis ku ñëw ne def leen lii nga ne ko déet lii du loolu la ñu war a def mu ne la ñun loolu la ñuy def parce que sunu aada benn wala mu ne lii la ñu kilifa gi sant wala mu ne ñun lii lañ fi fekk ko ɗum ɗo min tawi ɗo e wuro ngo ko ɗum min waɗata ko ɗum mewɓe mawɓe ɓe anndi yooyu lañ lay may waa léegi li mag ñi wax walla li yonent bi wax lan lañ war a def walla yonent bi ak mag ñooñu ku mag yonent bi ak mag yooyu wax nañ def lixlaas yi nañ def hasbunallahi nañu sangu nañu dëpp dóor bool yi nañu nañu nañu nañu nañu nañu ak yonent bi li mu wax lenn mooy jaamu yàlla ci tam xarit lenn mooy koor koor gi boroom xam-xam yi wax ci ñetti wax ñu njëkk ñu ñu ne dañoo war a woor neuvième jour dixième jour onzième jour ñenn ñu ñu ne neuvième ak dixième ñenn ñu ñu ne dixième kese lañ war a woor ñetti ñetti ñetti xalaat yi ban moo gën a wér xalaat bi nga xam ne dane nañu woor ñetti moo gën a faible moo gën a oyof moo tax nit ñi duñ ko def ñaar rek la ñuy am ñaar yooyu it lu tax bu njëkk bi yonente alayhi salaatu wasalaam dafa fekk yahuud yi di woor neuvième jour mu ne leen lu tax ngeen di woor ñu ne ko ci la ñu yàlla musale woon daal di labal sunu noonu comme ñoo ngi àndoon ak yonent yàlla Moussa bisub tam xarit la woon yàlla labal firawna ci géej gi yàlla daan ñuy rëccal ñun waa banu Israil ñun ak Moussa ñuy woor yonent bi nee na ana awla bi Moussa maa leen gën a yey ci Moussa dinaa ko woor ren ànd ak yéen waaye déwén bu ma fi yàlla bàyyee danaa woor dixième jour bi xam ngeen lu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci beneen fan damay laajte ndax xam nañ li tax yonent bi alayhi salaam teg ci beneen fan mooy pour wuuteeg yahud yonent yàlla da kaa yónni lu yahud def mu def leneen fekk na leen ñuy bàyyi seen sikkim yi mu gudd ñu bàyyi mustaas yi mu gudd yahud yi loolu mooy seen diine nasaraan yi dañuy bàyyi naanu yi mooy mustaas yi nasaraan yi loolu la ñuy bàyyi dañuy bàyyi mustaas yi daal di war sikkim yahud yi dañuy bàyyi ñaar yëpp yonent bi ne yéen wàññi leen bii ngeen bàyyi bii bu ko kenn laal waaful liha mu fekk leen ñuy feetu samedi yahud yi mu fekk nasaraan yi di feetu dimanche moom mu koy woor mu daal di jël feet ajjuma def ko feet kon moom dafa ñëw di wuuteeg ñoom mu fekk leen ñuy jublu masjidul aqsa ci seen jaamu yàlla moom mu daal di jublu masjidul haram mu fekk leen bu ñuy noddu ay philippe la ñuy yor ak ay cloche mu daal di indi nodd mu fekk leen seeni soxna bu ñu gisee mbaax dañ koy génne kër gi am na benn néeg bu ginnaaw bu nekk ci ginnaaw kër gi ñu tëj ko foofu moom mu daan ne isna'u kullu shay illa al jimaa def leen lépp ba mu des sëy yahudi sax ba ñu déggee yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wuuteeg ñoom dañoo wax ne waa waa ji moom ana lan moo ko dal waa ji lu ko dal ba saayu déggee ñun ñu def dara rek mu daal di wuuteeg ñun kon yonent alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko yónni pour mu wuuteeg ñoom moo loolu moo indi woor dixième jour bi waaye benn fan kese la woon muy bisub Tamxarit waaye yonent moo ci yokk dixième jour pour woor ñaari fan pour bañ a mel ni ñoom léegi yonent bu nee du mel ni ñoom lu tax ñun ñu nuroog ñoom ba ci gën a doy waar def ñu sant sax bu ñuy julli nañ sol suñ dàll mu ne ndax yahud bu ñuy julli dañuy simmi seen dàll yonent alayhi salaatu wasalaam pour sahaaba yi nañ ko dégglee woon benn julli tisbaar muy julli mu sëlmal ni imaam di def jàkkaarloog nit ñi mu gis dàll yi daa di ran ku nekk fi nga toog sa dàll ak sa kanam ne waaw lu xew yéen ñëpp da ngeen di simmi seen dàll gars yi ne ko yow yaa simmi ñu simmi ñoom daawuñu toog di dem na ñu lu yonent bi def ñu def yonent bi ne man jibril moo ñëw ci man ne ma dàll yi dafa am sobe moo tax ma simmi ko ñoom dañoo déggaloon yonent bi même ci julli bi ñuy wëlbati xibla gi di ko yóbbu masjidul haram julli tisbaar la woon julli ñeenti rakk ñaar la def jublu masjidul aqsa yeneen ñaari mu jublu masjidul haram waaye yeneen ñaar yi bi mu tourné fi mu rukkoo fi mu tourné jublu masjidul haram sahaaba yëpp dañoo tourné kenn toogu fa naan pare naan ko waaye luy sa dalil lii nga def nii lii mooy lan yow da nga ñoo bëgg a dof loo xanaa jublu fii ba mu neex la nga jublu fii soo demee ci jàkk ji ñaari xibla yi ñoo fa nekk aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله توم باتاتغو موي وقفة التأمل في استقبال العام الحجري الجديد ñun ñëpp doomu ndey yi buñ ne at baa ngi jeex at bu bees mu ngi ñëw yow jaamab yàlla bi da nga war a def comme borom bitig bi li muy def da nga war a def comme commerçant bi li muy def commerçant bu jaayee weer wala ñaari weer wala at day tëju ci biir boutique bi commencé di évaluer marchandise bi année bi ñaata la fay location ñaata la fay ñi ko doon liggéeyee marchandise bi ñaata la woon ñaata bénéfice la am ndax dafa perte wala noonu la ab julit war a def suñu ne at baa ngi jeex nga xool sa bopp nga càmbar sa bopp waaw man at bi ndax at bi yëpp ci jàkka laa ko jullee ñaata kaamil alxuraan laa fi jàng ñaata fan laa fi woor ñaata tiyaaba ñaata sarax ñaata ñaata waaye ñaata bàkkaar laa fi def ci luñ ma tere noonu la ab julli def da ngay càmbar sa bopp at baa ngi jeex nga yëg ne foo amoon boo waroon dund ñeen fukki at ñu ne la benn jóge na ci loo dese beneen ñëwaat dem loo dese beneen ñëwaat dem loo dese te nag lu ci doy waar mooy yow xamoo ñaata nga war a dund dañ la kaa nëbb dañ leen a demal rek ngay langar langari di dem di tëb di dal ndeke yoo xamoo benn fan nga dese wala benn at nga dese wala ñaari fan imaamu malik radiyallahu anhu dafa gént malakal mawt mu ne malakal mawt yi man lu ma fi dese mu ne ko nii i malik tiit yeew problème am na mbaa du juróomi seconde mbaa du juróomi minute mbaa du juróomi waxtu mbaa du juróomi fan mbaa du juróomi weer mbaa du juróomi at muy wër di wax di laaj fu ne mu dugg fa ba mu dajeeg borom xam-xam kooku ne ko lim la wax mooy juróom yooyu yàlla rek moo ko xam mooy fin wu suratul luqmaan juróom yooyu yàllaa ko xam kenn xamu ko ixwatal iman hal najaxna fi l amali ala taqdimi anfusina bi taxallina an kasrati min annaqais allati fiina wal insanu ala nafsihi basir li nga war a njëkk a laaj ci at bu bees buy buy ñëw at bu jeex buy dem nga laaj sa bopp hal najaxna fi l amali waaw ndax man réussir naa ci sama liggéey ndax simmeeku naa ci ay bidaa ak bokkaale ak jikko yu ñaaw yenn yu manqué yoo xam ne mu ngi ci doomu aadama yooyu nekk ci man manqué manqué yu ñaaw yooyu ndax dindi naa ko sama bopp wal insaanu ala nafsi basir ku nekk xam nga sa bopp ku nekk yow yaa gën a xam sa bopp hal addaynaa ma alayna min alwaajibaat aw jabaha allahu alayna est-ce que devoir santaane yi nu yàlla sant teg ko sunu kaw mu nekk ay farata kenn ku nekk war nga laaj sa bopp waaw man farata yàlla yi ma yàlla sant ndax dëgg dëgg dëgg def naa ko ni mu waree ndax def naa santaane yi ni mu jaadoo ku nekk xam nga farata yi la yàlla sant hal qumna bil waajibi al islami nahwa al axarin bi daawatihim ila ar rushdi wal haq ndax dëgg dëgg at bi passé ndax def naa waru gar yi nga xam ne moom la ma islaam sant ci sama diine ci ñeneen ndax woote naa fi at bi passé ñaata nit laa dugal ci alquran ak sunna laa bàyyiloo bokkaale ñaata nit laa woo ñaata nit laa jubal ci yoonu dëgg ñaata nit laa orienté jubal leen ba ñu baax kenn ku nekk ci ñun ndax laaj nga lool sa bopp yal na yàlla yërëm abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa arda keroog ba mu duggee ci lislaam mu tàllal loxo ndey jooram yonent bi tàllal loxoom abu bakar daan ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bi mu paree dana yonent bi mbir mi ma dugg tey lan moo ma ci war lii ma wax lan laa lan laa ko war a liggéeyal yeneen bi ne ko li may liggéey loolu ngay liggéey woote jëme ci yoonu yàlla Aboubacar génn Aboubacar génn indi Ousmane Ibnu Affan deuxième jour mu indi Ousmane Ibnu Maazun troisième jour mu indi Arxam Ibnu Abil Arxam ah allahu akbar da ngay jàng al ashara mubashirina bil janna quatrième jour mu indi Bilal ibnu Rabah bés bu nekk Aboubacar dina jàpp benn ponkal indi na yonent bi moo ngi nii ñun ñëpp bu ñu jàngee diine dañ naan ki ëpp li mu mokkal ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy Abu Hurayra mokkal na 5374 hadis 5374 hadis Abu Hurayra mokkal na ko waaye xoola Abu Hurayra moom kan moo ko dugal ci lislaam Tufaylu ibnu Amr Tufaylu ibnu Amr moo ko indi ci lislaam waaw ñun kenn ku nekk ci ñun koo fi indi koo dugal xoola Omar ibnul Xataab Fatima moo ko indi rakkam bu jigéen moo ko indi moo ko indi ci diine bi kon ndeke ku nekk war nga laaj sa bopp at bi passé man lan laa ci liggéeyal yàlla hal saarna bil masuliya fi l irsaad wa tawiya nahwa usarina min awlaadin wa zawjaat wa ixwa wa axawaat wa gayrihim min al aqarib wal asdiqa wal jiraan wa tullaab wa zumala kenn ku nekk ndax yëg nga responsabilité ci jubanti nit ñi conscientiser leen jubal nit baax na trop indi nit ci lislaam jubal ko ba mu nekk jullit dara gënu ko rëy waaye nga fexe ba mu am conscience julli li leneen manqué tey mooy conscience islamique ñoo ngi julli c'est bien c'est bien boobu ñoo ngi woor ñoo ngi jàng alquran waaye jullit ñu bëri ci ñun amuñu conscience islamique amuñu at tawiya al islamiya looloo tax diine bi mënul mel nu mu war a mel donte na ñoo ngi julli 95 pour cent musulmans mais amuñu conscience islamique loolu moo manqué formation boobu loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon def sahaaba yi ku mu orienté jubal la daf lay conscientiser ba diine bi jaral la lu dul diine bi allahu akbar xool leen sahaaba bi dugg ci lislaam léegi léegi léegi la dugg yonent bi formé ko léegi mu fekk ñuy séddale màng yi dañoo xeexi woon ñëwaat nañ alal jàng ni ñu koy séddale yonent bi séddale ba càgg gestu gis ko tibb jox ko mu ne ko lii indi wu ma fi yonent bi ne ko lan moo la fi indi mu ne xeej dugg fii génn fii ma dugg aljanna xoola ki takk jabar séet bu bees tàq di séetoog moom dugg ci biir di séetoog séet bi tey la ko takk indil nañ ko guddi gi mu dégg ñu ne hayya alal jihaad mu jéggi séet bi mu dem xeex ñu rey ko ñu gis malaaka yi jóge kaw asamaan indi ndox di ko sang ñooñu am nañ conscience ñun bu doon kenn ci ñun la ñu indi la séet bu bees nga ne fi nga dégg bilaal mu ne allahu akbar allahu akbar fajir ko tëjal fenêtre bi waaye loolu suñ problème conscience islamique moo nu manqué loolu nag feebar bu rëy la tey ci umma bi yëg-yëgu diine lañ amut la hawla wala quwata illa billah amoon na kenn ci borom xam-xam yi yaayam bu xëyee suba gis kanam gi leer mu kontaan yaay danaan ko yaay ji danaan ko umma al islamiya bi tey fan lañ am ndam lu tax nga kontaan mu wax ko ne ko dëkku sàngam damaa yëg ne jullit ñi nangam waaye bu yaay ji xëyee gis ko mu tayal feebar yaay ji day xam ne umma bi tey am na lu ci xew xoola conscience bu tey bu rëy boobu ñun dañuy nekk fii ñuy toroxal ay jullit ñun duñ ko yëgal suñu bopp bal sax kenn du yëg ci umma bi lu ci xew ixwatal iman ndax yëg nañ responsabilité ci consciente nit ñi rawatina sunu famille sunu kër sunu njaboot tey li lii xew ci àddina bi ngeen defe ne kenn ku nekk laajul ngay conscientiser sa njaboot ah waaye say doom say soxna say mbokk góor ak jigéen ak dëkkandoo yi xarit yi élèves yi xarit yi zumala àndandoo yi ñooñu ñëpp ndax laajul yow mii nga conscientiser leen nga xamal leen lan mooy lislaam dëgg lan la lislaam di xaar ci ñoom lan la lislaam bëgg ci ñoom lan la mission yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sàkk ci ñoom aha kay ixwatal iman hal ladayna al azm ala an nugayyira waaqiana ila al afdal fi hadha al aam al jadid laaj bi mooy ndax kenn ci ñun dogu na ndax kenn ci ñun jël na décision ferme ci soppi boppam soppi ay défaut ak ay manqué manquém ci at bu bees bii nu nekk ndax kenn ci ñun mbokk yi moo ngi xaar loolu ci boppam ne man dinaa changer ci at bii ci actualité bii nu toll danaa nekk benn soldaarul islam parce que yonent alayhi salaatu wasalaam bi mu ubbee daarul arqam soo ñëwee di dugg tànk ndeyjoor bi mooy njëkk a dugg nga seede ne balaa tànk càmmoñ bi mooy fekk si ndeyjoor bi waaye ndeyjoor bi du fekk si càmmoñ bi loolu moo tax ngeen gis saxaaba yi nekkoon lim bu ndaw waaye liggéey loo xam ne adduna bi kenn mënatu ko te ñu ndaw lañ woon lu tax parce que yonent bi daf leen conscientiser woon ixwatal iman inna hadihi al masala laaj yii wal muhaasaba al mawduiya ak at régler bi ñu war a régler suñu bopp hiya xutwatu taqadduma mooy pas yoo xam ne jéego yoo xam dañ koy teg pour avancer ban avancé fi tariqi salaax ci yoonu mbaax bu ñu bëggee jaar ci yoonu mbaax laaj yi foog ñu laaj ko suñu bopp foog ñu jëm koo dund foog ñu jéem a am conscience islamique pour ñu comprendre li nga xam ne moom mooy xew ci ñun moom mooy am moom moo nekk ixwaani fal nu waajih anfusana billadi kaana minna wal natub ila allah wal nuraddid qawlu saa'ir ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrum billadi qad kaana minni mbokk yi foog nu tuub dellu ci yàlla nu tuub at bu màgget bu paase liñ fi def waaye ñu préparé at bu bees bi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam ñu jël wax ji nga xam ne boroom xam-xam moo ko wax teg ko sunu kanam mooy yow yàlla bul ma mbugal ndax man saxal naa xam naa ne def naa ay manqué manqué xam naa def naa ay bakkaar saxal naa ko ci man fa maa lii xiila illaa rajaa'i waaye yàlla aw ma pexe def naa ay bakkaar ba pare amatuma pexe lu dul tuub dellu ci yow yaakaar la yow sama boroom la afwika in afawta sa njéggal rek laa yaakaar boo ma jéggalee wa xusnu zanni yazunnu nnaasu bi xayran wa inni la sarru nnaas mu ne leer na ma ne nit ñaa ngi njortu ci man man mi dama baax fekk maa gën a bon ci nit ñi wa inni la sarru nnaas in lam taafu anni boo ma jéggalul maa gën a yées ci nit ñi ab doomu aadama loolu lay bëgg da ngay tuumaal sa bopp bul jël sa bopp defe ne yow yaa gën a baax nit ñi yow yaa nekk ci kaw yaa ngi malaul aala yow yaay sunnit cent pour cent yow yaay mu waxit yow moom yow moom déedéet bul def loolu sa bopp yàlla nee na fala tuzakku anfusakum bu leen laabal seen bopp yàlla moo xam yàlla moo la xam kon noonu ngay def accuser sa bopp balaa ngay accuser keneen ixwatal iman wal naalam annana al aana fi fusha min amrina ñu yëg ne am nañu temps xam nga ñen ñoo dee démb maa ngi yendu dëj boo xam ne cinq personnes yu lakk États-Unis d'Amérique démb lañ leen doon suul Sénégal démb yoof ci dëj boobu laa yendu cinq personnes borom kër jabaram sëram ay doomam xoolal loolu ñooñu tey mënuñu dekkiwaat jaamu yàlla waaye nun noo ngi nii am nañu temps dañ leen tuub delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala préparé waat sunu at bii di ñëw mu nekk at bu bees ñu fexe jaayante ki ak sunu boroom kenn ku nekk war na wax ne man de insha allah at bii dinaa fexe ba sama diine li ci ëpp ma xam ko ci dinaa fexe ba mokkal ci nangam dinaa fexe ba def ci nangam waaye jullit boo xam ne wàllu àdduna lu ñëw bëgg na koo xam amma wàllu diine ak wàllu àllaaxira yoonum nekk ci kooku kuy dee di bett la dee nit daf koy préparer ni ngay préparer tukki kenn ku nekk ñun booy tukki booy jël oto sa bagage mi ngi ci maal bi sooy jël bateau bagage yi mi ngi ci maal bi booy jël avion ba bagage yaa ngi ci maal bi ngay tukki jëm alaaxira yoroo dara te bi ngay tukki yëpp ma wax bagage yi mi ngi ci maal bi nga jëm alaaxira nag sans retour voyage sans retour yoroo benn bagage ndax bagage u alaaxira mooy ay valise yu am ay ganila ndax bagage u alaxira mooy ay bagage yu am ay dollar euro CFA ndax bagage u alaxira loolu la déedéet alaxira xam nga lan moo fa nekk yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim yàlla nee na ay doom yu bari fi ngeen koy bàyyi alal ju bari fi ngeen koy bàyyi àllaaxira xol bu mucc bu set wicc bu indilul yàlla bokkaale loolu dong lañ fay nangu yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله